de ce fait saisir cette tribune pour remercier les volontaires, les crieurs publics, les relais mobilisateurs, les superviseurs de tous les niveaux, central, régional, district, de proximité, les équipes cadres des districts de santé, les responsables de postes de santé, les maires des communes, les chefs de quartier, les responsables religieux et traditionnels et tous les acteurs communautés pour tous les efforts fournis lors du premier passage de la campagne. Mais comme un adage de chez nous dit, la main qui reçoit en demande encore. Je voudrais demander à tous ces acteurs clés de continuer les efforts pour aider à réduire le pourcentage des enfants non atteints, les absences et les cas de refus, pour avoir un maximum de couverture vaccinale. Plus un enfant reçoit des gouttes de vaccin contre la polio, mieux il est protégé de ces terribles maladies. Je lance donc un appel à tous les parents et gardiens d'enfants de ne ménager aucun effort pour continuer à faire vacciner tous les enfants âgés de à 5 ans au cours de cette campagne vaccinale qui débute aujourd'hui. Quand je parle de tous les enfants, je fais allusion aux nouveau-nés et à tous ceux qui ont été vaccinés contre la polio au cours du premier passage et dans la routine. Toutes et tous doivent à nouveau être vaccinés contre la polio et à chaque occasion. J'invite également les parents, après cette campagne de vaccination, à respecter le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 23 mois en les conduisant au poste de santé le plus proche pour les protéger contre les maladies évitables par au monde, aucun enfant en Afrique, aucun au Sénégal ne doit mourir ou de vaccination. may rafetlu ndaje bi ñu tax teew fii ci turu ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf daanaka li ñu fi tax a teew ñun ñëpp xam nañ ko mooy que Sénégal day tàmbali ñaareelu passage ñàkkum xale yi ngir aar ci feebar bi ñuy wax poliomyélite nga xamante ne njëkkoon nañu def passage bu njëkk ñu am ci ay jéego yu rëy yuñ ci am waaye ñu jàpp ni biñ ko xayma am na lu des lu des ndax am na gox yoo xamante ne ñoo gën a ñàkk am na ñoo xamante ne seen ñàkk des na moo tax ci ndigalu ministre de la santé équipe yi jël disposition yi ngir Sénégal dund ñaareelu passage ñàkkum xale yi ci poliomyélite feebarum poliomyélite wax nañ ko fi sànq maa ngi nuyu ñëpp ñi fi def témoignage di leen di gërëm wax nañu looraange bi mu mën a àndil xale yi bu ñu leen ñàkkul ñàkk bi amul benn jafe-jafe bu mu mënal andil xale yi aar rek la leen mën a andil moo tax ñu bëgg ñaax mbooloo yi ñu bëgg a ñaax délégué de quartier yi parents yi waajur yi yaay yi bàjjenu gox yi ñëpp ñu jàpp ci campagne bi ba nga xamante ne dinañu mën a ñàkk xale yi parce que bu ñu leen ñàkkulee bu ñu nekkee mag feebar bi bu leen dalee mën la leen andil lortaange yoo xamante ne dinañu rëccu lu tax ñàkku leen ci biñ ci waree ñaareel bi li ma bëggoon wax ñàkk bi amul fay dañu koy def ci kër yi yëpp la xale yi ndaw yi suñu ndaw yi di jaar dugg ci kër yi fekk leen foofu ñàkk leen amul dara loo leen di fay donc bu nu bu nu bu leen bañ a teeru maa ngi leen di ñaan ku nekk bu nit yi ñëwee seen kër ngeen teeru leen dalal leen génne xale yi ñu ñàkk leen ngir aar leen loolu laa bëggoon na euh, jox message boobu ci wolof di gërëm ñëpp ñi fi teew di gërëm imam yi nga xamante ne dañuy jàpp ci sensibilisation bi ci euh, diir gi nga xamante ne dañ def ñàkk yi ñu leen di ñaan yéen itam ci seen wàll ngeen mën ñu jàppale bu baax ci ci ñàkk yi maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.